saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Doudou Diagne Diécko ma waxati ca CNG problème mu arbitre ya moom Doudou Diagne Diécko président des amateurs la sunu làmb dalal mu xëy wax ca problème mu arbitre ya problème mu làmb jëg CNG coowal CNG arbitre moom Doudou Diagne Diécko fa mu tegoon tànkam ba léegi fa la ko teg CNG warutoon a jël yile décision waaye arbitre yi tamit dañoo juum tey nag moom Doudou Diagne Diécko dafa xëy indiwaat leneen lu bees la mu ngi koy respecté ci saison 2018 2019 ko def na mu ware waaye terewul mu ci mën a jàpp bokk na ci problème bi amoon ci diggante Boy Niang 2 ak Zoss moom la mu xamle mooy suspension Boy Niang 2 amuloon benn base légale CNG da koo defoon rek waaye tegu ko woon ci yoon beneen suspension bi diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu moom CNG da koo def waaye tegaatu ko ci yoon dafa waroon a woo Alioune Seye 2 woo ñàkk jariñu entendre leen ba xam waaye xëy xëy suspendre leen saa nga déglu leen loolu dafa abusé wu ci pouvoir am waxee ñu ne Alioune Sarr la waaye bokkuma moom dara sequma ak moom leen lu dul làmb ji du sama xarit du sama nawle xaw ma sax buntu këram ñoom arbitre yi njuumte mënta weesu li ñu def ñoom bi coow li amee nañu dégg ndigal def leen Matar Ba wax waaye temps bi ñu def dem di seeti Abdoulaye Makhtar Diop mi ci làmb ba léegi lépp réglé bu Fass gannaaw ba mu daanee Abdou ci saison ba léegi moom Forza mënatul am combat jógee ci victoire te mënaatoo am combat yàgg nañ koo gis ci mbër waaye gisaat nañ ko ci Forza depuis combat ba le 24 février 2018 ca ba léegi bërewaatagul journal ba xamle ne Forza mii dafa yor lu soxlawut mooy technicité baak physique baak mën xeex ba li ni mel mbër mu ko ma wàcc ci mbapat yi jëflanteeg gone yi mooy pakala pakala bu mbuur ba saison bi tijjee ba léegi xeebut yéemut ko pakala mi ñépp jàpp dafa màgget mënatul dellu siwaat na li olof naan daqaatu saf ñaari yoon pakala weddi na ko moom bi saison bi tijjeeg léegi dem na juróom benn yoon final ñeent yi yépp da koo jël ñaar perte lim ci am ciy koppar boo ko xaymaa toll na ci 3 millions 730 mille francs bu dee Pape Maroon moom atum neexagul a ñam final ci 2019 boobee bëre boobee ba léegi yegg demi-finale sax da koy tëx te defet di tëx ci diirub juróomi at mooy Boy Bawol 2 moom Boy Bawol 2 bu dóor dóoraat ci diirub juróomi at 4 combat la ci am 4 victoire moom ci diirub juróomi at mu ngi bëri te déggagul muñal saison 2015 2016 la daan tee max bu Grand Yoff mbooloo le 23 juin 2018 mu daan Boy Jonn bu Bawol le 10 janvier 2019 mu daan Albarka Kayre le 15 décembre mu daan Bambey bu Bawol mbooloo noonee dana ko jëlam déet loolee mooy laaj ba sunu làmb sam en tout cas li am ba des mooy ñetti adversaire a ngi ci kanamam Yékini Senior a ngi fi Reug Reug a ngi fi Garga Mbossé ngi fi waaye gannaaw ba mu jógee ci defetam ak Boy Niang 2 ak defetam ak Malick Niang ba léegi day xool bu baax fu muy teg ay tànkam bëgg na bu ñëwaatee ñëpp xam ne gaynde ñëw na jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ba ci sunu réew mii nag ñooy ay màndargaam yaram bu